ñu suñuy jafe-jafe leen kes la muy ay làmp nax dèjà fii amul ay làmp te tamit xam ne comme fu toll nii war naa mën a am ay làmp ndax ñun yor suñuy machine ñëpp di fi liggéey yor suñuy place sàcc yi nag ñoo ñu sonal di dajji place yi di ko toj di jël di ci jot am ak ak su néew léegi nag ñun leen rek la ñuy ñaan pour ñu dimbali ñu defal ci ay làmp waaw ndax soxla ay làmp trop ndax fii bu nee ba lii lépp tese mboolem yëpp tese bi tamit xam na ni fii nii kon jaar na mu làmp yi am na ay làmp de dèjà am na ay bu guddee làmp yi da du tàkk kon dèjà dafa mel ni kon amul làmp fi lañ ne di fi daan suñu doole guddeeg bëccëg ñu ngi nuy sàcc di ñu dajji guddeeg bëccëg amatuñu gaz amatuñu téléphone nunu ñoo dox buddi nenu ñoo dox bëccëg asalem kenn xamul Touba la ne kenn xamul ca àll la ne amuñu ku ñu ko jooyal moo tax ñu génn bu ñu amoon kilifa ko jooyal duñ ñëw fii di ko jooy ñu bëgg nag ñëpp taxaw ci ñu taalal ñu suñu lamp yi daaw ba ren tàkkut màggalu Touba gi tàkkut dara tàkku fi lépp lëndëm ñu dimbali ñu taalal ñu ko ndax fi la ni liggéeyee fi mu ne nii bu balaa gee jot wàcc na ñibbi ndax ñemewuñ fi bëccëg ku yor sa poset jakata romb la kar la këf ko te kenn mënut a jàpp sàcc nañ fi effort bu rafet ñu ngi leen koy ñaanal ñu ba ñaan waa beneen yi tam effort bi waa guy mbind def ñu def ko ñoom itam. waaye mënatunoo tëdd nelaw noo ngi nee fi guy gi la ñuy jaayee nun jaayu nu lu may ay mburu ak ay ndambe ak ay bitik moom la ñu yor musunu fee jàpp sàcc dañ leen di yuuxoo ñu dem barki démb nag bi nga xamee ne def nañu enquête waa guy mbind ñoo enquête ba jàpp nañ sàcc yi ba jiital fi ñeenti sàcc indi ko ba ca ñecca ca bokk ñoo doon wax naan ja kii ca la kaa ca la kaa ki kaa ca la waaye nun nu na ci nacc ab sàcc nun ci suñ loxo moom defagun ko ba biig dong toj nañ fi ab fii ci koñ bi ba biig guddi biig dong ay xale xale daal ñoo def seen i groupe di ñu dajji toujours maam bërki biig dajji bërki démb dajji nañ juróom-ñaari place yi ngeen di gis yëpp genn guddi daaw man mii man juróom man moom dañ maan nee na juróom yoon sàcc nañ ma ko ñaari yi mujj yi benn bi quatre cent trente mille bi ci des cinq cent vingt cinq mille ak diw la sàcc ba léegi ñu ngi ñu ngi leen defeere Jurbel mais jotaguma sama alal bu ñu sukkandikoo ci kàddu góor gi waaye def kati ñawteef fi xam nañ leen waaye nag mënuñu tudd kenn waaye buñ ko saafarawul la ñu mujj mooy fajal seen bopp ndax fi ñu ci bëri xam nañ leen ñu koy def mais problème bi mooy doo mën a seet kenn ne moom la ndax dañoo bëri même gang bi jàpp nañ lu bëri man man dem naa tribunal ñaari yoon Jurbel bañ àtte àtte nañ fukki nit ak lu topp ñett ci daw ñett ñi daw kenn ki mbuur lañ wax ne fa la ne mais teguñ ko bët léegi ginnaaw lool yeneen ñaari gang judduwaat na fi barki démb lañ semaine ba la ñu génn lañ daaneel benn bi bi ci des commencé waat nañ bis bi set daal ñu dégg kuñ daaj xam nga ne ku ne fajal boppam moom loolu du yoon ca it fa la ñu mujj ndax fi mu toll nii su fekkee boo yoree saalal nit mu jaral nit ñëw daaj ko yóbbu bu yàggee danga da nga wut sa doo na ne yàcc nag. askan wi nag la ñuy sàkku du lenn lu dul ñu taalal leen seen lamp mbedd yooyu. maam ñi nga xam ñoo yor ñoo nekk ci wàll nguur geeg yëpp daal ñu ngi leen ñaan ñu dimbali ñu Asal Lem guy ga ñu ngi ñaan moom di jooytu di sakk ngir yàlla ñu taalal ñu suñu lamp yi. mais bu ñu tëjee suñu place rang yëpp daanaka mën nañu seen place yi nañ ko sàcc yi moom dañoo sonal carrément waa ndax nag dèjà comme secteur bu toll nii bu fekkee amul lamp amul dara moom sàcc dañ koy nendu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 yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer